képp ku ko xamoon xam digganteem ak Pendo Guissé démb bi ñu nee génn na àdduna ñi xam Pendo yëpp sa xel ci moom lay njëkk dem ndax euh, li nga xamoon ni seqoon nañ ko ci teraanga waaye yàlla boon lee woon ñu nekk ay xarit lool ba Sénégal yëpp xam ko euh, Pendo nga ñàkk xarit képp ku la xam xam na ko man am personne Euh, bi ma déggee loolu sama xel ci yow la njëkk dem nga ñàkk ku cher ci yow man xam naa ci dara képp ku la jege dina ci xam dara xanaa rek dañ lay jaale quand même Pendo yow ci ñin war a jaale ci nga bokk di la masawu ndax xam na ni lu tiis la sa xarit bi nga xamee ni dem na muy soxna moom Momy Seck. waa dama nañ ko jaale waa yéen tamit rek yéen ñëpp di wax asalaamaaleykum gërëm ñëpp sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaane way di ñaanal moomi sekk yàlla na ko yàlla xare àjjana. muy lu muy lu bett Pendo li mu ni mu soree woon ci yow Pendo man dama bëgg tey nga wax ma lan moo la boole woon ak moom yi ndax koo bëggoon la daawoo wax ñaari baat ñett te yëkkatiwoo ay kàddu yi sant jëmale ko ci moom. dëgg la moomi euh, publicité laa doon def këram waaye ngi àndoon ak mère ñu dem ba këram ci publicité xam li ngay li ñuy wax gis nit sopp ko rek moo koy dogal moom mi gis ma rek xam naa daf maa gisee bëgg ma bi mu mayee mayee seen seen yére mu geesu may ma benn parfum parfum boobu moo fas sama kóllëre ak moom bi moom sax nekkagul seen TV damay lu yàgg la boobu moom it liggéeyagul sax seen TV parfum boobu moo indi sama kóllëre ak moom bi bàyyiwul nag weer we weeru koor sama xarit yi ma àndal xam nañ sama diggante ak moom ba dañ naa ma ana moom yegg seegul ma ne ko léegi mu ñam weeru koor lépp lu ñuy sama kër moom yi moom a koy andi moom bi may toggee nii nii nii sama kër si moom yi la jógee cuisinière bi may toggee nii si moom yi sekk lay jóge si la jóge du télé du da amul lu ma moom itul defar moom même sama yaram suy metti moom it daf may wax benn est-ce nga dem nga dem noppalu ko tuuti da ngaa yow pratiquement moo la nara sonal billaay wallaay sama xarit boobu dama xam bu baax fi ma féete woon amul lu may naqari te du woo moom yokk ko sama vie privée gi yëpp laa wax lépp laay woo moom yokk ko lu la may confidentialité bi amoon seen diggante nga wóolu ko lool heure boo waxaan bari nga ay wëllëre pendoo man xam naa ci dara waaye bokk na ci ñi ngi gënoon a fonk kii di soxna Momy sekk lan moo defoon loolu seen diggante waaw parce que daf maa bëggoon ba ma xam ko moom it daf maa bëggoon ba daf maa ràññee woon ci biir nit man dama bëgg ko torop te daw ma ci dara amul dara lu may daw sama digganteeg moom it dama bëggoon ba wane ko man tam ma bëgg ko ba wane ko barki yonent yàlla ma mën moom it dafa sincère woon moom it dafa diiñoon moom it dafa mën personnalité moom it dafa mën fulla yooyu yëpp daal boo ko dajalee mooy daal ah moom it sekk daal sama xarit la woon yan kàddu yu jaale ngay jëmale ci yaayam bi nga xamee ni def na ay seede yi rafet ci moom niki démb wante wane ni tamit ku yaru la woon ku bëggoon yonent yàlla Muhammad la wane ni moom perte na doom joo xam ni bëggoon na ko torop tamit. dëgg la loolu dëgg la moom it dafa yaru woon ba du la xool mooy man damaa ko mën a retaan loo mooy ci biir feebaram bi di muy feebar feebar feebar man ko mën a retaan loo sama xarit la daal di yaayam wax. jëkkëram wax ay mbokkam wax man mii di xaritam loolu laay wax nit ku yar woon la la dëgg dëgg buy retaan te doo koy dama ko mooy mënoo retaan ci kaw bilaay walaay dama ko doon mbalak su ma ko maanaam moom yow mënoo retaan ci kaw xanaa doo bàyyi retaan bu suufee bii ngay retaan muy xàqataay bilaay walaay kii ma àndal nii sama xarit la dama doon a nettali benn histoire ma wax ko moom it moom it heure naa ma waaye an sa xarit boobu ma ko kan ñanga mënu ma nit ku seddoon la koo xam ne buy ree sa doo ko yëg moom it daal yal na ko yàlla yërëm xam naa ne man yàlla dina ko yërëm ndax moom it dafa amoon yërmande yàlla dina ko suturaal ndax moom it dafa amoon suturaal yàlla dina ko yóbbu ci fu féex ndax moom it dafa dafa dafa dafa bëggoon jàmm te ku bëgg jàmm féex billaay wallaay loolu rek laa am ci loo xam ne daal mën naa ko def seede ci moom yi nga xam ne man ñàkk naa si sama xarit li may wax dama bëri ay xarit yu baax waaye tey naa ci kenn ku baax loolu ku la naa ci kenn ku baax ku ma bëggoon lool ku xaarul dara déedéet moom suñu suñu wootante si jàmm salaam ne du woote ni du ay may-may moo tax may wax xelu moom it xel mi barke Serigne Babacar xelu moom it daa set wecc wecc wecc wecc dara lu dara lu ñaaw bokk bala nga koy xam sax nga am lu la metti nga woo ko da ngay mujjee da lay conseillé yóbbu feneen beneen côté yow man ko moom yow li ma naqari nii xanaa naqariwu la mënuma ankay ah waaye du nii nga koy defee nii nga koy defee ak nii ak nii loolu dafa bokkoon ci loo xam ne daal da xam ne daal. Pendo xëy na c'est la le moment waaye mënul ñàkk ban souvenir moo la gën a marqué ci li nga jot a partagé ak ki nga xam ne mooy sa xarit bi fi jigéen mi mu sekk ndax kàddu gi benn la moo xam ci seen TV moo xam ci ay waajuram yow ban souvenir moo gën a marqué ci li ngeen jot a dund moom it chaque jour souvenir la ci man ba ci nii mu feebaree nekk Europe laa wax souvenir la ci man bilaay wallaay ndax du yàggul dara rek man maa ko am lu ma ko expliqué mooy bu bëggee reetaan loolu la woo di ma ko wax man ko te pourtant li ma la expliqué nii lu ma naqari la problème laa leen digganteeg moom yàggul déedéet ay vocalu moomeeg ay bindu moomeeg yëpp a ngi sama téléphone bilaay wallaay keroog bi may génn si télé bi nii bi may mujjee je savais que moom it dafa feebar mais du ma génn ne moom it dafa feebar dama naa leen dafa dem France rek loolu laa mën a wax waaye ñàkk naa ko baax de congaan barki Xalifa Malick barki Seydina Muhammad ñàkk naa nit ku baax ci man nit ku nit ku am woon ci man ku ma yërëm man dama doon wax moom it rek maa yërëm loolu laa ko doon muy reelool ne benn loolu nit dina ko wax ko da nga maa yërëm barki xalifa Maalik ñàkk naa sama xarit de. daay wallaahi wa taala barki yoon ci yàlla Euh, mbokk yi Pendo Guissé képp ku ko xam xam nga digganteem ak ki nga xamee ni mooy soxna Momy Seck euh, fidélité bi nga xamee ni amoon na ko ci digganteem ak soxna Momy Seck ñi ko xam ñëpp man am personne bi ma yëgee xibaar bi sama xel euh, ci Pendo la njëkk a dem ndax fi ko fi ko soxna Momy Seck toll woon donc kon dañ koy massawu yaakaar naa témoignage yi benn la moo xam seen TV moo xam ñii daal liggéey ak moom moo xam famille moo di ne muumi ku baax la woon surtout li ci ëpp solo ko amoon sutura la euh, nit ñi koo dajek li mu lay wax ci ruq bi sax du la ko mën a wax xëy na ci antenne télé bi nit ñi di ko dégg moo dina defal ne ma teraanga boo xam ne bi ma ko defaralee man dama yaakaaroon ni euh, ci man kese la yem euh, Pendo nag ñëpp xamoon nañu fidélité bi mu amoon ci soxna Momy Seck xanaa rek di la jaalewaat bu baax a baax may la occasion tamit nga jaale sarak perte nga waaye Waly Seck tamit mën nañ wax ni perte na yaayam ndax ginnaaw mama jaaga Momy moo tax woon taxawaay yaayam dëgg la de dëgg la de Waly Seck de billaay wallaay wa xam naa ne moom xolam mi diis na torop moom dëgg dëgg na ndéem ñun ñi nga xam ne moom def ñoo xamoon nii rek ñoo ci mën a barkaati démb ba léegi nii kenn nelawul jur bi moom i gaañoo démb ci fajar 2 heures du matin bi ma ko yëgee 2 heures du matin ba léegi nii kenn mënul nelaw ndem ñun ñoo nelawul ma sama ñi bokk ak moom i nag surtout Wally Seck man sama mbëggee rek Wally Wally bëgg ci moom mi la koy firndeel barki yonent ci yàlla Mamadou ci moom mi la sama buntu ci waali ci moom mi la moom mi laa doon envoyé audio moom mi envoyé ko waali waali envoyé ko waat mu envoyé ko ma ñëw mu jigi naa ma benn gisee yow waali du ma seen morom seen audio yi ngeen ka ngeen ma ko jàllanteel nii barki yonent bi waali moom ku yebul rek na ko na ko ñaanal ndax xam ne ni mu meloon ak moom mi dëgg-dëgg nag yàlla na ko dëddoo jàmm ak salaam waaw yàlla na ko dëddoo jàmm ak salaam mu yeggale liggéeyam mu dëddoo ko jàmm ak salaam dëgg-dëgg waaye waa kër coon am naa si ñoom xel mu dal ndax laa gis ñoom imaan barki yonent yàlla mooma du soxna Aysa mi gën a ndaw ak bintu da ngay xool xam ni ah coon coon Seck yar na ay doomam de macha allah. non papa coon doomam yëpp yonent ay yonente la leen tuddee rawatina yonente yàlla Muhammad démb bokk na ci kàddu yi ñu seedeel euh, soxna si fi jógee soxna moom yi mooy ku bëggoon yonent bi la loolu day wane ni rek kon xëy na li ko papam yaroon ci loolu la génnee àdduna la moom i da jàkk ngay def moom i rek nga xam ne kii ko yiw la nga xam na kii jigéen bu set la jigéen bu sell la moom li nga gis ni si kanamam nii jigéen bu yiw la jigéen bu sell la te du xool nit man moom it musul jaar sama tuur madame rek lay wax madam waa madame madame li waa madame lii madame lii loolu ko sa lay wax koy ñaanal daal koy ñaanal bu baax a baax koy ñaanal bu baax te man am naa ci xel bu daal démb bi korba yaa bi di romb sama buntu kër ah bu rombee sama buntu kër. xam naa ne ñàkk naa sama xarit dëgg-dëgg man dé man xam du ma gaaw gëm man dama toujours damay wax xelu xale laa dama naan xëy na mu dekkiwaat man yooyu laay wax waaye démb biñ ko dugalee ci kor bi at mu romb sama buntu kër parce que armeelu Yoff bii jege ma tout près xam ne sama xarit bi ñëw na sama wet barke yonent yàlla moom ah beneen lu ne mën naa amaat beneen moomi moo dul amaat beneen moomi amul déedéet. ma moomi de ñun suñu lépp moomi la woon dëgg la jooy leen moomi walaay barke këram tamit bugaan mënul ñàkk tamit nga jaale ko pendu ndax donte ni jot nga liggéey ak moom moom it ñëpp xam nañu nii euh, vide na am na vide boo xam ni euh, ñi ko xam ñëpp nee nañu du yomb mu am ko ko remplacer. moom amul beneen remplaçant déggoo ma la beneen lu ne mën a mën amaat waaye beneen moom yi moo dul amaat bugaan bi bugaan vide après la koy xam xaar ba ñëpp ñibbi télé bii nii loolu vide la yow man liggéey naa télé ba xam naa fi moom yi yóbbu télé bi xam naa fi ko moom yi indi bugaan après lay xam ne am na vid bu mag a mag a mag ci côté yëpp parce que yonent bi ci côté yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp vide carrément vide total bugaan waaye yàlla mën na mën na ko remplacer mu am kenn <laughs> mu keneen ku ko gàddeel lool li moom yenn woon waaye li beneen moom yi du amaat amul yow tam beneen moom yi amul tul loolu du amaat déedéet. Tonton fi may jeexalee ni mu nekkee woon sa xarit mu génn àdduna ci sutura am ay nit ñu yëkkati ay kàddu euh, di wax wala naan feebar nangam moo créé yu demee noonu loolu yow noo ko dundee. bilaay man ci sutura boobu rek laay bëgg ñu ñu teg ko fa ndax moom i borom sutura la. comme daf am na sutura ba ba génn àdduna rek nanu xam ne moom mi léppam sutura la avant ñoo génn armeel li ne dafa niis nga xam ne nga dafa dafa lëndëm nga xam ne borom sutura moo gaañ moom yëppam yëpp nii la doon demee sedd na démb suul nañ ko heure boo xam ne heure heure heure sutura la ndax borom sutura la woon dëgg-dëgg nag moom Seck borom sutura la woon daal xam naa ne borom sutura la woon tey boo doon dugg biroom ñu daja man ak yow su ma duggee du ma wax say wax yow suñuy wax lay wax fàtte na yow ni yow ñëwoon nga fa kooku am am sutura déggoo may la beneen moom yi du amaat beneen lu ne mën naa am beneen directeur beneen DG beneen directrice waaye beneen moomi sekk du amaat déedéet déedéet déedéet maa ngi lay masawaat bu baax a baax sama jigéen taalibe Serigne Babacar Sy ñëpp ñëpp ñi ma ko jaale ñëpp tam ndax moom i ñëpp dañoo ku ko dégg rek da nga naan Penda Guissé moom sekk si image moom i sekk si image nit ñi xamuñu ko si image ñëpp dañ koy xam sama xarit la woon te nëbb woon kenn moom i sama xarit mu dem ba Waly rakkam bi mbokkal ndey bàyyi mu jàpp ci loolu Waly boo waxee mu ne Pendo Pendo moom i la démb way boobu mënu ma ko woon dégluwaat barki yonent bi mais moom yi doo ko wéccoog keneen man ko yàlla xam na ne du ma ko wéccoog keneen déedéet amul remplaçant nit mu taxaw sama kanam ba nekkaat beneen moom yi ci man déedéet. ñu bari ñu ngi xalaat suñu yaay mama Diaga moom it xam nga ni ñëpp nee nañu ñàkk na koo xam ni sori woon na ci moom xam naa ni du ñàkk tamit am ay kàddu yoo ko yoo ko dégg. dafa forte mama Diaga dafa forte xam kuy defar koo jërul kuy defar koo jërul di dem ci di defar ay néewu jàmbur kooku sa doom deewee dem nee naa leen gisuma gisuma mama jaaga waaye xam naa defar na moom i defar bu normal barke yonent yàlla moom lu tiim sa doom di ko defar xam nga neexul waaye moom ñoom dañoo fort waa kër Papa Thione dañoo am imaan imaan boobu nag ñoom ñu am noonu ku yebul rek na jéem a jàngi loolu sa biir xol nga setal ko wecc moom i moom setal na yëfam ba yow moom moom moom yëfam moo wone boppam moom i sekk démb dëkk bi dafa niis barke Sëriñ Babacar dëkk bi niis na denc nañ ko loolu kese la billaay wax alhamdulilah rabbil alamin di sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bu wér julli ci Moustapha sangu sang yi loolu kese moo fi des amul leneen sant yàlla bu baax kese la. boo gisee Wally Seck yàgg na wëy sur di wax cofeel bi soxna. Euh, Moumi Seck amoon ci Pendo wante tamit Pendo cofeel bi ma amoon ci ki nga xam ne mooy soxna Moumi Seck kon day wane rek àndandoo la boo xam ni même ay waajuru soxna Moumi xamoon nañ ko ay rakkam xamoon nañ ko ay magam xamoon nañ ko Wally seede na ko plusieurs fois Sénégal yëpp di ko dégg kon jaadu na tey Pendo ñu waat la di la wu bu baax euh, man mi jot a xam ci yow dara xam naa ni ñàkk nga ko sori ci yow mais yàllaay dogal euh, ñun ñëpp ala kulli xaal dinañ fa jaar lii la yàlla bëggoon mi ngi lay encouragé di la masaw bu baax a baax xolam neexul mu ñëwoon fii ci cité kër góor gi ngir bokk ak bugaan gi bokk ak famille bi li nga xamee ni mooy naqar bi moom Pendo Guissé donte ni euh, difficile na pour mu wax wante wane na rek wax dëgg yàlla regret bi nga xamee ni mu ngi koy dund depuis démb ci euh, ku sori ci moom ki nga xamee ni suñu borom jël na ko waaye nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ko xolu muñ moom yàlla may xolu muñ kii di Bougane Gueye Dany ak képp koo xam ne rek famille Seck nga wala famille bu bokk ci famille Bougane Gueye Dany ñu ngi fii ci cité kër góor mbokk yi ci lu yàggu dara jërë ngeen jëf